nga ay seex may leen lu dul jeex ñu seexal fe ay seex yaa seexu baam ana soppey seex Omar Buso rakki seex Mbàkke Buso nabi seexal nga ay seex may leen lu dul jeex seexal fe ay seex yaa seexu baam Seex ma si la ndaak Abdoulaye Diané Baye Dame Diané nabi seexal nga ay seex may leen lu dul jeex ñu seexal fe ay seex yaa seexu baam Seex Modou Lamine Gueye Seex Allé Gueye Aliou Touré Aliou Seye Seex Birahim Ndiaye seexal nga ay seex may leen lu dul jeex ñu seexal fe ay seex yaa seexu baamba mudu fal gànnaar mudu fal langaar sax lu xuja mbay longoor ñoom ñëpp seexal nga ay seex may leen lu dul jeex ñu seexal fe ay seex yaa seexu baamba mama samba xëri wadd seex Modou Lamine Gueye seex Ibrahima Sey ñoom ñëpp seexal nga ay seex may leen lu dul jeex ñu seexal fe ay seex yaa seexu baamba Serigne Ñaan Jóob seex Rijaal Sekk mor maane mbay mor maane mbay na bi seexal nga ay seex may leen lu dul jeex ñu seexal fe ay seex yaa seexu baamba ana soppey seexi sëriñ tuuba yi ñoom ñëpp a baax ñoom ñëppay wali yàlla yàlla dolli seeni leer ñoom ñëpp daa bay maam say njaay faal sa tolluwaay kawe na yaay waay ay waay ay Bamba ana soppey Cheikh Ibra Fall loxo ca kaw nu màggal Baabul Muriidi Fall Cheikh Ibra kawel nga paalen teral nga njaayeen Cheikh Ibra kawel nga paalen teral nga njaayeen Cheikh Ibra kawel nga paalen teral nga njaayeen Cheikh Ibra kawel nga paalen teral nga njaayeen Cheikh Ibra kawel nga paalen teral nga njaayeen leeral muridina ay faal yaay lamp Bamba Baay Faal bi leeral muridin ay faal yaay lamp Bamba Seex Ibra ana Baay Faal yi leeral muridin ay faal yaay lamp Bamba Seex Ibra Seex Ibra Faal Sëñ Fallu moo sañ ci ndindi di def di dindi ku réer bu gindee xamal la réew mi Serigne Fallou.
ku bëgg sëñ Fallou baayu alaaji baara jógal taxaw ca kaw màggal sëñ Fallou. ku jóg màggal ko yàlla nga fekkee déwén.
Serigne Fallou moo sañ ci ndindi di def di dindi kuréel mu ginna xamal la réew mi Serigne Fallou. Saalika fadlullah Saalika fadlullah man yasaa moo sañ ci dindi di def di dindi ku réer mu ginde xamal la réew mi sëriñ fallu ana soppey alaaji fallu sëriñ fallu sëriñ fallu sëriñ fallu sëriñ fallu sëriñ fallu sëriñ fallu mbàkke sëriñ fallu moo sañ ci dindi alaaji fallu di def di dindi kuréel mu ginde xamal la réew mi Serigne Fallou sañ ci ndin su nee na taw mu taw su nee du taw du taw am ngëneelu laay ni ma seex fallu seex fallu laa loo ma sa wax am laa am na bi isnillah waay Seex Fallu alaaji fallu Seex Fallu la alaaji fallu ma sa wax am na am na bismillah sëñ fallu ni ma seex fallu ma Seex Fallu seex fallu laa Fallu la loo ma sa wax am laa Fallu am na bi isnillah waay ma Seex Fallu alaaji fallu Seex Fallu la alaaji fallu ma sa wax am na alaaji fallu bismillah sëñ fallu ni ma seex fallu
Sëriñ Fallu seex fallu laa loo ma sa wax am laa bi isnillah waay ma Seex Fallu ana soppe yi alaaji fallu la sëriñ fallu sëriñ fallu sëriñ fallu sëriñ fallu sëriñ fallu sëriñ fallu mbàkke la
loo ma sa wax am na loolu dëgg la bismillah waay ma sa wax am na alaaji fallu bismillah sëñ fallu loo ma sa wax am na bismillah waay ma sa wax am na alaaji fallu bismillah sëñ fallu yaay sa tub sunu maam sunu maam jaara jaaratula waay yaay sa tub sunu maam sëñ fallu jaara tula sëñ fallu yaay sa tub sunu maam sunu maam jaara jaaratula waay yaay sa tub sunu maam alaaji fallu jaara tula sëñ fallu doomi daam ma demoon fil bahri la waay doomi daama demoon alaaji fallu bari la sëñ baara matal na yan ba dana yamba doxati war ma dana yamba borom sañ-sañ ba ay na sëriñ baara dana yamba ana soppe yi sëriñ baara bàyyu seex siidil muxtaar sama waaje yal na fi yàgg te wér sëñ baara nga neel nga feese ay may nga feese dana yamba gëneel nga roose réew mi sëriñ baara baara aminata lo baara aminata lo maami sëñ xaadim moodu baara gëneel nga feese ay may nga fees gëneel nga roose réew mi sëriñ baara ku leen taxaw ca ko màgg Serigne Bara jar na ko ku jug taxaw ca ko màgg Serigne Bara yàlla nga fekke déwén di leen taxaw ca ko màgg Serigne Bara jar na ko
Cheikh Bara nga neel nga feese ay may nga fees gëneel nga roose réew mi sëriñ Bara Bara Aminata Lo borom bunyaana Cheikh Bara nga neel nga feese ay may nga feese gëneel nga roose réew mi sëriñ Bara ana soppey Cheikh Bara bayu Cheikh Sidil Mukhtar jàmbaar ja seen Bara Bara addina war na addina jooy na Bara addina war na addina jooy na ñàkk na mbër ma mbër ma moo di sëriñ Bara mbër ma Sidi Mukhtar nga neen la ñëw na moo di sëriñ baara mbàkke ana soppey seex siidil muxtaar sunu xalifa bi ne la ñëw na moo di sëriñ baara mbàkke borom kër ngànna borom taw feex ne la ñëw na moo di sëriñ baara mbàkke wax leen yàlla na fi yàgg te wér siidi muxtaar nga ne la ñëw na moo di sëriñ baara mbàkke nee leen yàlla na fi yàgg te wér Sidi Muxtaar nga neen la ñëw naa moo di sëriñ Baara Mbàkke wax leen yàlla na fi yàgg te wér Sidi Muxtaar nga neen la ñëw naa moo di sëriñ Baara Mbàkke borom kër nganna kër nga sunu xalifa bi nga ne la ñëw na moo di Serigne Bara Mbacké borom kër nganna borom kër nga wax leen Cheikh Saliou Mbacké baax tigal te dollinu Bamba la jox lu ne gaañ ay doonay Bamba borom jannatul maxwa moo baax moo baax bay sal cantay waaral lii ndol leen duudul jeex man maa ngi sant maa ngi ma àndal Serigne Saliou jërëgeen jëf foofu nag laa koy yemale waaw waaw ci lu wér sax man de maa ngi dogu ci Serigne Touba Xaadim Rasul mi nga xay ni gëwma ko lu dul moom lenn rek moo may metti sama àdduna nga xay ni moom laay xalaat mu naqari ma lool mooy tey buñ ma laajee ma ne juddoo Ndakaaru yaroo fa waaye ñun ñi dëkk Touba nga xay ni danoo war di sol dàlli weñ di wër ñi nga bu ñuy def bu ñuy def cant gi ñu koy ruubee ko def yooyu ñu leen di sifaay Touba rek ngay ñëw di gis ñuy def yooyu ñun fee ñu dëkk léegi man boo ma xoolee bu ma nee la Dakar laa dëkk sax doo ko gëm li la nit ki rawee ci ak taali bi ngay xool ngir nga dab ko ngir jëmmi suñ tubaa te suñ tubaa sax nee na boo tuddee sama tur yàllaay njëkk ni tekk yonent bi ni tekk ñuy xool ba xam loo ciy teg baxa bi yàllahul kiraamal xuraa wa bi baxa yan nabi asara ndegam ñooñoo naan tekk nag kon ñun wax dëgg yàlla war na noo am jom ndegam ndegam ñooñoo njëkk ni tekk nag rawatina ñun ñii xam nga xam nga am na loo xam ni am na loo xam ni ñun ñii di waa Touba war nañ ko rus bu baax a baax man de maa ngi dogg ci suñ Touba mbala ga genn yenn affaire yi ci tànt yi Touba rek laa koy gisee billahi waaye su ma ko gisee li may jël ci samam xel image bi may gis moo di danaa gis Dakar dansine am fa leneen am fa buñ bëggee dem ci cant gi dem ci cant gi buñ bëggee foo dem ci leneen li waaye Touba cant gi rek la ñu am moo tax seen xel mu ñun suñ xel mu gàtt cant gi leen bëgg a jàpp ay mbalak ci leen bëgg a yëge yàlla dooga fi sa koor gi suñ Touba nee na ma topp leen ne maa ngi fekk néeg bi ñu def ci ay xotti biteel def ci ay rabb jël ay dem àll ak sobe su bëri def ko ci biir néeg bi
histoire solol rek solol solol jël sees rek toog histoire am na lu koy lijjanti mu gaaw lu lu yomb koy lijjanti waaw mais boo summi ko day mel ni daa am luy xew te dara xewul kaay leen ku baax waaw kaay dugg si waaw lee mu jeex jeex na jeex na abo
ma ne xool leen yéen ñii di jàppale Mara ci bis bi yéen a ngi bëgg a yàq bis bi nag gis ngeen ñee ñi ngi leen di bëgg a ëpp aw demen dem leen ngeen toog ne déglu njàng yi ngeen di def di aalu di xataraayu amul benn njëriñ yéen jigéen ñii di seetaan it amu leen fayda dem leen toog fee ngeen di seetaan ñuy xeex nit day am fulla ci boppam ay jàng leen indi toog leen fii fu ngeen jëm lu ngeen di seetaan kuy xeex ak kuy daanu daa jëra seetaan nit day woy ci boppam lu ko yëkkati mu xam ko bu ko mën mu dem tëri yàq seen nelaw yi toog fii di ko caaxaane toog leen déglu jàng yi dégg sëñ gaane ñëwal taxaw fii wax li ngay wax bu leen yàq jàng yi yéen ñi ko woote yéen a ngi koy bëgg a yàq
waaw na ñëpp dugg si waat ci biir tànt bi góor ak jigéen mag ak ndaw yéen ñëpp dugg si ci biir tànt bi waaw ay caaxaan amut solo nit bu taxawalee ab bis financé ci lu bari day xam li ko jar kon dugg si leen ci biir tànt bi te bàyyi ñooñ ñu nekk ci li nekk yéen ngeen ñëw nekk ci li ngeen nekk ndax lii moo ëpp solo waaw dugg si leen ci biir tànt bi yéen ñi nga xam ne sëñ Mara toogal ak ñi la jàpp ñi nga xam ne ñoo lay jàppale ci bis bi ak say xarit na ñëpp ñëw dugg ci biir tànt bi waaw
ba Bamba di dem géej ba tabbi fii safiina bur yàlla la ko yaa ay xaddimu sil madina ba tabbi fii safiina ma Bamba ba Bamba di dem géej ba tabbi fii safiina bur yàlla la ko yaa ay xaddimu sil madina ba tabbi في سفينة في سفينة في سفينة في سفينة نبي بابا مبدي دم جيك بتبي في سفينة يا لا لا وكيا خدي موسى المدينة بتبي في سفينة في سفينة في سفينة borom Tuuba nihmal xaddim nihmal wasiila silmila ya wasigal Mustafa saa'ibil madina ku yaakaar sëñ bamba jógal taxaw ca kaw jaayu màgg sëñ bamba ku yaakaar sëñ bamba jógal taxaw ca kaw jaayu màgg sëñ bamba
silmila Mustafa borom Tuuba nihmal xaddim nihmal wasiila silmila ya wasigal Mustafa saa'ibil madina نهم الخدم نهم الوسيلة سلملا ما برمت باء نهم الخدم نهم الوسيلة سلملا يا وسيق المصطفى سائق المدينة ana soppey Cheikh Baara Baara Aminata Lo borom Mbàkke Kajoor borom bunyaana borom sañ-sañ ba Mustafa borom Tuuba nixmal xaddim nixmal wasiila silmila ya wasiga Mustafa saa'ibil madiina نهم الخدم نهم الوسيلة سلمنا مصطفى ما برمت باء من أولي من أولي بجمو جوا كل سنة يا وكودا الجيل سائب المدينة من أولي Zaysan ya koda liggéeyal maam borom Tuuba leeral nga xol taral nga yow sunna xalilu waa abibu saibil madina Qur'an Cheikh Modou Bamba wa abibu borom Tuuba man yominu Maam Bamba man yominu Maam Bamba man yominu Maam Bamba man yominu bi ko dëggal di waajana aleykeril waanu laay bi saa'ibil madina bi ko dëggal di waajana aleykeril waanu laay عسى وجل من تيما ويلا بيسسنا أحمدنا الخديم يا ويتر يلا asa wa jalla asa wa jalla man tay ma way la bi sa sanaay maa ngi ñaan ku dug taxaw ca kaw jaayu màgg sëñ Bamba yàlla na nga fekkee déwén dug leen taxaw ca kaw jaayu màgg sëñ Bamba loolu jar na ko dug leen màgg sëñ Bamba sa sana
yaa wiital yàlla asa wa jalla asa wa jalla man tay ma way la bi sa sanaay wetar yàlla asa wa jalla ahmadun al xadimi dayma way la sa sana
momana foote kum bon nga boote bon nga boote ki moom la roo ate alatima
wetar yàlla asa wa jalla ahmadun al xadimi dayma ahmadun al xadimi sa sana
boo taggee bamba teg ca jawriñ ba ja jawrin ba teg ca kuréel ba ja ja kure yaa sadiya
Otage Bamba tey ca jawrin ba ana soppey Cheikh Ibra Fall ja kurel ba teg ca kuréel ba boo taggee bamba teg cee jawriñ ba teg ca kuréel ba yaa sadiya faal njaga yaaram teg ca teg ca kuréel ba Cheikh Ibra Lampu leeral nga fépp yaa wa nekk topp li la suyaa faal njaga yaaram teg ca teg ca kuréel ba Cheikh Anta gaawaan géej la guy baawaan man Cheikh sultaanu Sodaan yaa sal xinaay maam Cheikh sultaanu Sodaan Cheikh Anta gaawaan géej la guy baawaan maam Cheikh sultaanu Sodaan yaa sal xinaay borom daaru salaam sultaanu Sodaan Cheikh Ibra Faate borom daaru Muxti yayonga xati bisa sanaay maam Seex sultaanu sodaan Seex Moodu Ndumbe Mbaake mbu soobe ñépp ko joobe waxtal xanaay ana soppi Sëriñ Tuuba lox ku ko def yàlla na nga gudd fan sodaan kay am li nga doon wax sëñ Cheikh jërëjëf suñ ma sàmbakan ni tëj bunt bi suñ tubaa dem ba dend ak perum sàkken bi toog jàkkaarloog penku daal di dindi kaala yi ba mu set te suñ tubaa ni mu daan kaalawoo day jël kaamil teg ko ci digg bopp bi daal di def teñ laay comme ni suñu Abdou Lahad Mbàkke di def dooga jël kaala gi ñu miin teg ko ci ay keroog daal dindi kaala yépp ba mu set suñ ma sàmbakan nee na booba daal leen dem këris waaye ci saase daa gis pek ci ci penk bi sàkket wi jàkkaarlu penk bi ni lawet dem nee na ñu gis ak leer gu leer nañ nekk suñ tubaa da doon waajal muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam nee na yonent bi dox di dox di dox ba yegsi fi suñ tubaa toog ab tànkam ak tànkub sëriñ bi tàmpe nee na suñ tubaa ji di di tàggal boppam xasida yi nee na di ko jóor yonent bi di ko ko jóor di ko ko jóor ba noddukat bi nodd ci jàkkan yi allahu akbar fajar nee na naka mahamadan naar ni allahu akbar fajar rek nee na yonent bi dem suñ tubaa ni ñokket ni ko masamba bismillah ñu dem ci jàkka ji kon xasaayit moom ku koy jàng suñ tubaa la ko njëkk a def mas naa am bisit suñ tubaa ci këram gi ci njëreem ndax kër gi ñetti kër la woon kër boppam ak kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak kër boroomam kër boppam gi ci laa ci la daa gisee ñëpp amul xejj amul seen kër yonent bi foofu ñu ne def na fa ak yonent bi fukki fan ak juróom xejj yi képp la fa daa gisee la kër boroomam gi nag li ñuy wax xaloo bu ko masaan dugg la fay dugg te booba ma masaan dugg moom sëriñ bi danaan ku ma soxla nii leen ku may ma damay gisee ak sama borom daan ni nag bu dee ko yor alxuraan la na ngeen ko téye di ma ko teralal ba ma génn nga xëy ni ko yor alxuraan du la bàyyi nga dem dañ lay taral di la taral ba sëriñ bi génn di la joxal boppam li nga bëgg bu doon xaalis wala loo soxla ba sab xol sedd mu door laa bàyyi nga dem sëñ Abdou Samatum sëriñ Soye bu nee na ma sëriñ Abdou laata ko nettali lii ak sëriñ Soye bu nee na sëriñ Touba foofu la génn bis di ree ree yu métti moom sëñ Touba nee na di ree mag ñi jaaxle mu ni li ma def di leen jaaxal ñu ne ko waawaa Mbàkke mu ni sama xalwa gi de yàlla damaa xamal ni ma ku aju ci man aw yaramam araamal na sawar nee na mu dellowaat sama borom laaj bi delloo ko yàlla daan ne ko ana ko aju ci man nu may def ba xam ko mu ne ko fu ni waxee sa xasida yi mbaa sa mbaax gi ku fa ab xolam sedd ba ay ranko ñoom génn kooga mën nañ koo boole ci ñu aju ci yow waaye wa- waxut waxut ñu daanu di mbalak dani koo xëy ne aju na ci yow ab xolam sedd ba ay ranko ñoom di génn mën nañ ko boole ci ñu aju ci yow rankoñ fa mu nekk daa sori ngir yee génnewu ko ay mbalak génnewu ko tirikaas génnewu ko loolu génnewul rankoñ waaw ñun ay murit lañu dañoo war a gëm sëñ tubaa kennal ko sëñ tubaa lu fi baax moo ko baaxal sëñ tubaa gis nga lii sëñ xaarim di def nii sëñ tubaa mas naa jàpp loxo yi ci njaarim teg loxo yi ci ginnaaw di wër di jàng mooy bi di ko jàng di ko jàmm sëñ ma sàmba génn ko bi mu génnee daal di koy dégg daal di woo sëñ ibra buuba ndax daaj boobu keroog bu ko sëñ tubaa daajee lañ ko mujjee dégg te kenn déggatu ko mu woo sëñ ibra buuba daal ne ko daaj boobu nañ ko daal di daaj léegi sëñ ibra buuba daal di wax gone yi nii leen daaj leen daaj bi ñu daal di koy daaj sëñ tubaa dégg ko daal di woo sëñ ibra buuba ne ko ana daaj boobu fu ngeen ko jëlee mu ne ko ci sëñ masamba mu ne ko wóol leen ma masamba sëñ masamba ñëw mu ne ko ana daaj boobu foo ko déggee mu ne ko daa am ku kilifa gu baax ca teggin ya noonu la doon waxee ak sëriñ bi ne ko daa am kilifa gu baax gu ne woon ci këram ñu déggoon ko mu di ko jàng ñu doon ko baaxee gone yi rek sëñ tubaa ne ko akasa noonu laa ko jëlee ci jigéeni àjjana ya moo tax maay bu ñaari yoon la ko bind bu njëkk ba ba mu ko bindee maay bu njëkk ba ba muy toll ci ba muy toll ci tarjumaan ji borom salaatul fatiha ci bind salaatul fatiha dani jaww taxaw ci kanamam feeñu sëñ tubaa ni ko dimbali ma nga jël sama salaatu gi dugalal ma ko ci sa xasida yi ndegam day egg ngir sama xasida gi bañ a taxaw sama ta- salaatu gi bañ a taxaw loolu sëñ tubaa ko wax wajjala ma tataxanaa bi xar xuru wal wil dan moom kon lii sëñ xaadim di def sëñ tubaa moo ko njëkk a defal boppam xasa it da nga koy jàng aw yiw di wàcc sa kaw ñuy tudd sëñ tubaa aw yiw di wàcc sa kaw ndax yàlla dane ko li nga ma jaamu li jël ko rasulullahi duy naa ci mulku ak malakoon mu des pay gi sëñ tubaa ni ko ana ana ana ana yàlla ni ko ana nu may def pay gi sëñ tubaa ni ko delloo naa la ko mu ne ko pay gi dinaa ko def aw yiw sotti ko ci niir yi fu ñu toogee di jàng xasida yi mbaa ñu wax sa mbaax gi ma koy sotti ci seen kaw fii ku fi ñëw bu la neexee bu la naqaree di nga yóbbaale aw yiw kon loolu wax dëgg yàlla war nañ loo rus ba ba ba duñ ko yàq nag waaye da ngay gis koo xam ne day solu ba jekk dafa ne ak cant moom reer la ak sol mbubb ak solu dal bu xëyee nag di tere reer naan cant gi toj na toj na te yóbboo wenn tojit loolu moom du dara di ah léegi nan ko ter sëñ Tuubaa mu ne xasaay ibnu rabbi futixat lii yàlla ubbil na ma magasin yi bam ne ŋàpp mooy tànn ñi ciy liggéey jànkati xasida yaa ngi nii moo leen tànn kii sëriñ si di muxtaar ne ko sama xarit la nee naa ko yow ku la bañ daa sellu rajo laa yor di ko wax bañ naa ko ba gaynde sama sëriñ ma koy wooye gaynde nee naa ko yow ku la bañ daa sellu xam nga lu ma bëgg ñaar fukki murid yu mel ni man kenn ku ne jox ma ñaar téeméer man maa ciy jiitu yow mi ni ah ci ginnaaw nag di nga am gàcce ndax murid yi laa koy laaj te fii laay taxaw ñu jox ma ko yow mi doon mbalak nag kaay léegi murid yi jox ma ko de andi ñaar fukk laa bëgg benn ngi nii man joxe naa andi ma wàññi ko ba mu mat andi am dellool ma ñii weccal ma ñii ma koy joxe ba mu mat yow mi ma ni ñaar fukki murid ku ne ñaar fukki ñaar téeméer nga ni ah da nga am gàcce ndax murid yi dina ma ko jox léegi am aw góor murit nii lay def ñun gaa yi ñu xam ñoom Baye Cheikh Fall ñi ñu xam ak gaa yi ak ay Cheikh Mbaye ak ñii wallahi ku ni ñu dinañ yor rajo di wax ci Sëriñ Tuubaa da nga naan déedéet ñun ay 2003 yi passé man 2003 quartier la ma fekk ma doonub soldat j'ai fait l'armée à 3 in 21 lan ma formé fa gën a métti ci bango nga xam ne deret lan ko peinturé sama matricule 03 04 00 14 41 léegi Sëriñ Tuubaa lay xënte woo yow nga dëkk Tuubaa yi defuk ñàkk faydaa ko matadi yaa bon oññal ma ñaata la da ngaa am fit xàmme ma mbaxana laa sol sol lu weex su ma génnee topp ma maa ngi koy dogg ci Sëriñ Tuubaa ma lijjanti la billahi la si laa ilaha illa huwa xoolal ñaata la borom cant gi lan koy def mu neex bi man fii laa nekk xoolal ñaata la waxal ñaata la waaw aw góor gars yi yàlla na ngeen gudd fan murit sëy day silwise doomi aadama du yàq liggéeyum ndayam barki Sëriñ Tuubaa ah ñaari junni mu des ñaari junni nit wër te yàq liggéeyum ndayam woykat bi daa woy lu am solo dani doom ndayam da caa foor ndax bu koy bu koy nampal da koy xool xanaa xamoo ni koo gis bu ko ndayam dee nampal di ko xool da koy wàll jikkoom moo tax li sa nday namp foo jëm yóbbaale ko xool gi mu lay xool sa jikko la lay wàll seen yiw gi du yéen defar seen liggéeyum nday la mënta ñàkk am jom rek mooy may lii ay koo xay ni foo dem da ngay bëgg gis maag ñàkk fay daakat def matadi gi ku koy def ci Touba gi barke Seexul Xaddim da ngay faatu ñun nag mën nga ko def fee ñu dëkk amut problème waaye Touba gi billahi la si laa ilaha illa hu ku ko fiy def leen nga gàttu fan teguñu ko ci xam-xam ak i baatin ak yooyu yëpp dañoo xam borom dëkk bi borom dëkk bi bi muy sanc fi ay gayndeeki ay bukkeeg lu ne fi nekkoon suñ Touba sanc ko ba tey jii mu mel ni titre foncier Touba rek ko am ci Sénégal nga dëkk fii di def yeneen ku Sëriñ Saliou jaral ñaar téeméer ñu mottali ko mu mat aw góor andi aw góor jëlal aw góor am aw leen góor am mbasin yi koo gis mu sol ko nag ka ko amut barke Serigne Touba ñi nga gis ñu mbalak ñëpp bëggoon na na am seen bassin yi mënuñu ko am dañuy iñaan rek di def ñàkk fayda ak yooyu ñaata la sa ñuusu ah 4000 la ci des nee na léegi sëñ baara laa koy laaj sëñ baara laa koy laaj ñeenti murid rek kenn ko ne jox ma ñaar téeméer ah kon ñaar yi dama koy laaj sëñ baara ñaar yi ma laaj ko Cheikh Ibrahima Fall suñ baar waa góor andi wax nga dëgg de wax nga dëgg de waaw góor murit aw leen góor am am sëñ Fallu dana ñëw kay kon ñi ñaar yi ci des sëñ Fallu laa koy laaj rek mu gaaw jox ko mu jàng sëñ Fallu mat na bopp sëñ Xaadim ñoo ngi ñaan ci sëñ Tuubaa nga gudd fante wér ak mboolem ñi ngay àndal maa ngi ñaan nag nga dogu ci barkeb xasayid yi ndax jàng xasayid boo koy def man nga lu nekk dama bëgg gaa yi nga ñaanal leen ñu bëri ay milliards ndax seen xol yi buñ sañoon yori milliard di ko jëfal sëñ Touba barke Cheikh Ahmadul Khadim gaa yi da ngay am ñoo xam ni da nga leen di xool rek xam ni seen xol seen xol yi li ci nekk mooy ami milliard di ko jëfal sëñ Touba maa ngi ñaan nga ñaan ci barkeb xasaay yi ñu yori milliard di ko jëfal sëñ Touba ci barkeb xasaay yi jërë ngeen jëf.
jërëjëf sëñ Cheikh Mbacke Gaynde moom kilifa la maam moo bokkan ci ñi daan liggéeyal sëñ Touba muy kilifa gu mag noonu mu ko waxee rek noonu la demee ay boroomi ndoom bay tànk la yoo xam ni yu kawe kawe waaye sëriñ bi rek moo ko ñor moo tax mu bàyyi yëpp topp sëñ Touba kon yal na sëriñ bi fay te taxawu la ci barki Cheikhul Khadim sa digganteeg sëñ Khadim ñëpp xam nañ ko nga jàpp ko loolu ngir sëñ Touba ak xasida yi. foo ko dégg rek nga bàyyi si te yëpp ñëw ngir sëñ Tuubaa xasaay di ñu ngi lay ñaanal suñ borom guddal sa fan te wéral la ci barki sëñ Tuubaa xasaay di jërë ngeen jëf sëñ Mara yow it ñu ngi lay ñaanal suñu ñaanu bopp jëmm ju baax nga koo xam ne sëriñ bi rek moo la ñor la suñ borom jagleel nga di ci yëngu ku ñëw rek nga defal ko ci tawféex ngir jëmmi sëñ Tuubaa xasaay di maa ngi koy wax sëriñ rek bu yàggul sama bis bi ma doon defal sëñ Tuubaa liñ ca doon taxaw carte ya ak yi ci ànd yëpp moom mi moo ko defar lépp jox jox mu ko addi sëñ Tuubaa te loolu ak baax rekk la te bi nu xamantee yàggul sëriñ mii rek moo nu xamante ngir sëñ Tuubaa kon maa ngi lay ñaan yow it nga yàgg fi loolu te wér ci barke sëñ Tuubaa yàgg sa gaay yi nga àndal bis bii nga yàgg koo taxawee ci barke xasida sëñ Tuubaa yi ak waa daayira Xidmatul Xaddim sëriñ ak sëñ aaleeg sëñ Cheikh Kébé soxna mati yi ñoom ñëpp ñu ngi nii taxaw bis bi ba macha allah. yan leen sëñ Tuubaa fay ñoom it taxawu leen yokk seen xam-xam ak seen wërsëg ci barki Seexul Xaddim jërë ngeen jëf.
sëñ Xaadim li nga daan jàng naan Cheikh Ibra Fall jébbal ko taawam ba dama ko gëj a dégg lool te damaa neex lool doggu naa ko sëñ Baara boo ko jàngee naa bég lool.
jërë ngeen jëf mbokki taalibe